yéen kay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. cirë ngeen jëf saxaar gii di train express régional ak déqeem ci réew mi ku gàttu fan doo ko fekke li tax l'observateur ne nañu moo di date bi ñu jàppaatoon ngir war ko caa dawal dàqaat nañu ko ajjuma ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre 2021 boobee la ñuy waxoon ne ci la TER bi di tàmbalee daw waaye reporté nañu ko ba altine ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre li war a reporté gi l'observateur ne nañu ci président de la république Macky Sall ca la bawoo nee na 24 décembre la te dafay tombanteeg feeti Noël yi nit ñi duñu ko moo tax taal ci bi doon luy express régional bi ak i datam journal bii di l'observateur mi ngi ñu koy limal ba wax ñu ne juróom-benn fan septembre 2019 njëkkoon a joxe mu tuxu ñu waxaat datub fanweeri fan novembre mu tuxu Omar Youm ba muy doon ministre des transports waxoon na ci l'observateur ne avril ci la taal TER bi yéen bi nañu ba avril taxul TER bi déqi ñu ne waat décembre 2020 fourage dalli xëddeen bi ñu ci mujjewoon a jàpp di àjjuma 24 décembre war di daw ci distance bu toll ci juróom fukki kilomètre ak juróom war di jaabaytoo ci diggante ndakaaru jam ñaajo ak ay daporub jas jas ba ndakaaru jàpp fépp ci réew mi askan wi jommi nañu démb ndax gerew bi wata yi gerew Sud Quotidien nañu coono bu rëy la nit ñi dundu démb ndax bëgg xëy xëy yi seeni soxla duñu gis li leen yóbbu ñi ci am a am sansakus néew ci sareet yeeg moto jakarta yi lañu ko kal réew mi Quotidien bind ne borom cag-cag yeeg borom sareet yi ci réew dara démb seen bamba maase na bu baax a baax ci gerew bi yéenekaay bu bees bi di bës bi xamal ñu ne ci bësub démb bi borom sareet yi finaalu nañu ba seen xol sedd li ñu gis démb ci ndakaaru bariwul lees ko fii gis ay mbedd yu ne wëyëng du car rapide du njaga njaay taxi waxi nopp ñu bari ci ñu waroon a xëy liggéey dañoo mujj dellu seeni kër ci saredeeg jakartaay daal la nit ñi mujjoon di jël ñu jël journal La Tribune mi ñu wax ne ñépp a démb muy liggéeykat yi di élèves yeeg étudiants yi ba ci ñi waroon a dem rendez-vous transporteur yi gerew démb Tribune nee nañu wane nañu ne duñu ngaaca ci réew mi réew mi ndax coono bi dina jeex tey ndax transporteurs yi gerew ñaari fan la ñu waxoon muy démb ak tey waaye for nañu yokk seen loxo léegi gerew illimité la ñuy wax di gerew boo xam ne duñu ko dakkal li fekk seen tawat yi amuñu ci saafara su wér xëy na saafara am ci tey ndax journal L'As mi ngi ñuy xibaar ne ab nab réunion sectorielle d'urgence bu ñu woote tey ci yor yor gi mu war a dajale syndicat transporteurs yi ak mboolem ñi séq wax ji mu di ministère yi ministre emploi formation professionnelle apprentissage ak insertion di Dame Diop L'Observateur nee woon démb ci assemblée nationale ca kanamu député ko doon wooteel biit budgétam budget bi mi ngi toll ci 85 milliards ak lu teg l'observateur teg ci di ñu wax ne moom ministre Dame Diop démb ca kanamu député nëbbul mbégte mi mu am ci lii di programme d'enrôlement des jeunes ndax nee na tax na ba lu mat 12 571 jeunes ci réew mi am am xëy wax na ci programme xëyu ndaw ñi ba xamle ca 10 747 jeunes yu ñu dugal ci ñaari téeméeri entreprise ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci stage ak i contrat ñaari at renouvelable waa mouvement na Mar renouvelé nañu démb naqaru xol wi ñu amee ci justice bu Sénégal ak ni muy doxee nee nañu justice bi dafa jeng bay diree ko ubbil enquête yi ne kay liberté provisoire gi ñu may waa ji di Thierno Amadou Diallo mu génn di doxi ay soxlaam ba noppi ñu bàyyi kilifa ci kaso bi loolee moo leen ñulug ba taxoon démb ñu doon defub conférence de presse fa la ñu waxee ne àjjuma fukki fan ceeru décembre woote nañu rassemblement bu mag fas yéene jóge buntub université Cheikh Anta Ndakaaru dox ba buntu assemblée nationale ngir ñaawlu ŋaañ jéebaane ni justice bu Sénégal di doxe Samona ak seen marque téléphone yi di Mion ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ñu àndoon ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko gërëm ak yéen di doon teewlu xibaaru 8h yeeg RFM grève transporteurs yi nu sumb démb di ko wéyal ba tey ci bëccëg gi di rëb ñaar ci fan ak coono bu métti bi mu àndal ci askan wi ci wàllu dem ak dikk ci diwaan yëpp rawatina fii ci Ndakaaru tey nag euh, waxtaan yeneen seen digg ñoom transporteurs yi ak ministère yeneen su weesoo bi nu wékku wàllu transport euh, ministère yeneen yi nga xamante ni seen i poñi ñaxtu yi daal dina euh, leen soxal grève xiifal étudiants yu université virtuelle bu Sénégal ca la ñu ne boobaak léegi fanweer ci ñoom ñoom euh, ci xibaar am na ci ñett yu ñu rawale hôpital roi Baudouin ndaxub coono ñaawlu nañ ba fa ñaawlu yam ñu ne ñàkk teewu que ministre enseignement supérieur wala kenn ci ndawam moo waral ñuy jokk ak njiitu réew mi ne bu nu sañoon mu wut ca saafara ci seen tolluwaay ak nekkin ñoom ñooy di étudiant yu université virtuelle bu Sénégal Y'en a marre moom jàpp na date 10 décembre la fas yéene wàcc ci mbedd yi manifester euh, ngir ñu bàyyi kilifa euh, bu Y'en a ndax dañoo gis ne ndey ku mbaamul ndey Abdou Thiam moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi digital gi ak soxna Yacine Pouy. coow yi nga xamante ni ñu ngi fi di def grève de la faim te lu tax ñuy def grève de la faim bi mooy pour ñu sélectionné leen ñu mën a dem defi seen master comme seen i euh, mag yi nga xamante ne jàll lañ ci promotion une bi ba ci promotion quatre bi nuñ ko defee. et nous interpellons le président de la république monsieur Macky Sall ne ko mu jël ay responsabilités parce que Cheikh Omar Anne léegi dégluwuñu faalewuñu Moussa Lo boobu ba léegi déglu wu ñu faale wu ñu balaa l'irréparable di produire nañu na état bi jël ay responsabilités am te ut ay saafara. ñu waxtaanee wàllu yoon ak lu ñeel Cheikhna Amadou Diallo di kenn ki nga xamante ni moo daal di defoon vidéo bi wane woon kilifa ci anam yu nu ko njortal mbiru trafic visa ba waral ak téem boobaak léegi moom it moom Cheikhna Amadou jàlloo ci xibaar yi mujj euh, bananu ko euh, ginnaaw li nga xamante ni mooy ak déglu ci kanamu juge d'instruction deuxième cabinet avocat maître El Hadj ñu teewlu ko. dañ ko dégloo ba pare dama def li ñuy wax demande de liberté provisoire ah juge bi bañ ma def appel ci appel bi ma woon chambre d'accusation talaata 30 novembre 2021 ci la woon audience bi ma woon waa chambre d'accusation ne leen kat ah man mënuma comprendre ki nga xam ne moo joxe xaalisam bu ñu defal ko visa defaluñ ko visa ak ki nga xam ne dafa luy woon benn passeport jaamul delloo ko dafa jox ma sama xaalis jox ko xaalisam ba mu nekk parti civile ci dossier bi mooy dafay laaj ndàmpaay ak ñu delloo ko xaalisam ne ko Simon delloo delloo xaalisam ne ko kilifa delloo xaalisam ñu bëgg la boole ñoom ñëpp ñu mel dañoo nuroo alors que sama client moom clientewul kenn lekkul xaalis kenn donc Thierno Amadou Diallo dañu lekk xaalisam ci quatre millions cinq cent la koy topp ci trois millions sept millions cinq cent kooku ni ñu koy téyee kaso moom ñi nga xam ne ñoo lekk xaalisam moo tax ah <laughs> bi ma plaidé ba pare sama déclaration xam maanaa ci moom mu leen topp nekk partie ci dossier bi téye kon Thierno Amadou Diallo téye ndoo ko te ak ñoom kilifa di simo sax bàyyi nañ ko ah kon du kenn du xam ne lu muy nuru kii lekk xaalisam nuñ koy téye ak ki lekk xaalisam <laughs> mënul nekk Thierno Amadou Diallo dafa waroon a génn kenn war ko woon sax tëj di mel ni ñuy defar ay visa di kenn xamul fi koy defaree di jox xamuñ visa ñiy def ay njub lañ ñoo ñoo war a dem kaso Thierno am plaidé na yoon plaidé dëgg jox ko maître El Hadj a marre jàppul ne loolee dëgg la ñu baax Thierno Amadou Diallo ba ci kaso bi kilifa moo waral seen ab conférence de presse démb danañu fas yéene amal nag ak manifester di dox boo xamante la nu ci jublu mooy sàkku libération moom kilifa bu Y'en a manifester gi nag euh, université Cheikh Anta lay tàmbalee le 10 décembre wutali place Soweto kenn ci ñoom Y'en a marre ak Jo Maroon. dañu xëy tey ci booru midi ñu am information bu ñu wax ne Thierno Amadou Diallo yoon bàyyi na ko mu dem. bàyyi ndëgëniku ba pare def ko lu ñuy woowee contrôle judiciaire mooy maanaam di ko wax ab par diir bu nekk ci weer bu dee da nga ñëw di wuy si ñu ne waaw naka la ñu mun a bàyyee Thierno Amadou jàlloo te kilifa Thierno Amadou Diallo yan garantie la am yu tax ñu mun koo baax te mu ga kilifa amut yooyee garantie ñu gën ñu téye ko foofu ca biir kaso ba ci rëbës mu nekkat beneen ni mbir moo xamante ne day gën a fësal di gën a dëggal que yoonu Sénégal waxuma la jeng waaye lu ko neex la nekk di def moo tax boo xoolee depuis ay at maanaam bi Macky Sall ñëw ci pouvoir bi ba tey lépp loo xamante ne yoon mu koy def jëm ci féete ci ña nga xamante ne ànd ñoom Macky Sall mooy yet la boo xam ne day dóor di fëgg di mbëkk di fayantoo di xoqatal di tiital ak néewal doole dañuy woote manifestation fépp fii ci Sénégal à partir de vendredi 10 waaye fii ci Dakar dañuy doxee buntu université jëm buntu assemblée nationale ñi koy wooyee place Soweto ndax nag yoon a ngi jeng te lu ëpp dafay tuuru mbir maa ngi bëgg ëpp. bal wax euh, ci tournoi HCCT mi nga xamante ni dana daal di ubbi saison lii di euh, club amateur yi danañ ko daal di door nag euh, lu door rek juróomi fan ci weeru décembre bi laata ñu koy jeexal ñaari fan ci weeru janvier ci atum 2022 ni ki démb nag lañ doon amal tirage au sort bi ci teewaay njiitalu HCCT ak itam njiitalu kii di président ligue amateur bu football ñu déglu si Asbarakan présidente bi ñu denk au conseil des collectivité territoriales di Aminata Mbengue Ndiaye di rafetlu quatrième édition bi ba noppi tamit di jaajëfal acteurs yi. kon tey bu ñu demee ba coupe bi nga xam ne moom la au conseil des collectivités territorial moom la la ligue amateur de football jël institué ko de son vivant tey Ousmane Tanor Dieng làqu ñu jël coupe bi tuddee ko ko man du maanuma lu dul euh, reconnaissante envers vous. remercier leen remercier Ablaye Seydou Sow remercier le président de la fédération sénégalaise de football. parce que li nga xam ni tey moom la ñuy def loolu mooy boole territoire yi ci football bi bu baax a baax a baax. président bu ligue football amateur di Abdoulaye Sow di wax ni ren ji ay coppite dina am rawatina bu ñu tolloo ci final bi. cette coupe coupe la boo xam ne si euh, dinañ ci nemmeeku catégorie nekk ci football amateur fi nekk nag wax nañ ci bu baax a baax waaye nag mi euh, bëggoon nañ ci andi ay coppite coppite yi mi ngi jëm ci li ci jiitu ci phase finale yi phase bi nag ren euh, dañ koy footballé fu dul Dakar ren ji Louga lañ koy defee. cette fois-ci nous lu am dayo la ci sunu football ki ko xam ne di Augustin Senghor président de la fédération sénégalaise de football. que le nataal la ci suñu football bi compétence yi nga xam si moom la. nit ki di am waaye tamit équipe bi lépp yoo xam si moo koy liggéey. ñoom acteurs yi football bi profité nañu ci ndaje mi ngir woo képp kuy supporter mu supporter équipe bam ci fula ak fayda ngir ñu gën a mën a ñoŋal sunu football. tàmbalee waxtaanee football ca biti réew ak championnat bu France démb nag lañ doon amal seen seizième journée match yëpp ñu ko daal amal démb ci ngoon Paris Saint-Germain moom dafa daal match nul ca Parc des Princes zéro partout seen digg ak ñii di waa Nice loolu yëpp di firndeel jafe-jafe yi nga xamante ne ak léegi mu ngi ko daal di am donte am na ay kàngam yu fa nekk ku ci mel ni Neymar Mbappé ak itam kii di euh, Lionel Messi démb nag ci googu lay jogante seen digg ak Nice kii di Gana Gueye jot naa football ba mu jeex Abou Diallo moom mi ngi woon ci ban remplaçant yi waaye ñi nga xam ne di waa Marseille ñoom. dañ see daal di profité ñoom itam daal di am ndam foqati ñaareel place bi seen euh, digg ak ñi nga xam ñoom lañ ko doon xëccool ñoom dem nag waa Marseille dañoo daal di am dam benn bal dara seen digg ak ñi di waa euh, Nantes Pape Gueye moom di doomu Sénégal nekk ca Marseille jot na euh, dugg remplaçant ci deuxième période bi Cheikh Bamba Dieng moom bokk woon ci gile jongante na ma leen ko waxee nag ñoom waa Marseille jamono gi ñu nga féetee si ñaareelu place bu tolloog nag fukki poñ ak ñaar daal dox seen digg ak Paris Saint-Germain féetee ci place bu njëkk bi ci classement bi Lyon moom dafa daal di ñàkk démb ci diggantam ak Reims ñaari bal ci benn Rennes ànd ak doomu Sénégal fekk euh, ca dëkkam daal di ko daan ñetti bal ci benn noonu itam le Montpellier daal di def fekk Metz sa dëkkam juróomi bal ci ñaar ñi di waa Girondin bu Bordeaux Habib Diallo moom ca Strasbourg la daal nekk waaye moom jot football gi lay jongante ndax mu ngi ci banque bi Mbaye Niang moom nekk ca Girondin bu Bordeaux jot naa dugg ci deuxième euh, période bi. ñu daal di waxtaanee euh, leneen di wàll football ba tey waaye bi la yoon ak championnat bu euh, Turquie bu Angleterre plutôt Angleterre foofu lañ ca mën a jàpp moo di. ñu ngi woon seen quatorzième journée démb nag Liverpool moom ci derby Merseyside bi dafa daal di am ndam gu yaa ci diggante ak ñi di waa Everton ñeenti bal ci benn doomu Égypte bi di di Salah ràññeeku na ci daal di dugal eh, ñaari but doon jamono gi meilleur buteur ba tey bu championnat bu Angleterre sa Mané moom itam jot naa jouer ba match bi eh, jeex Chelsea ñoom ba tey ñu ngay wéy di nekk ci bopp raw gàddu gi gannaaw ba ñu amee ndam démb seen digg ak ñi di waa Watford benn Edouard Mendy doon eh, góolu ci équipe am boobule di Chelsea fàttali bi nag ko dugal moo di Hakim Ziyech di doomu Maroc nekk foofu la ca Chelsea Aston Villa moom Manchester City daka fekk ci dëkkam daal di ko daan ñaari bal ci benn ñoom waa City ba tey di wéy di féete si ñaareelu euh, place bi xanaa rek ñu bamtuwaat ko Chelsea euh, Manchester City ak Liverpool moo di ñett ñu rawagum foofu la seen championnat démb itam ci euh, diggante Southampton ak Leicester dañoo daal di match nul. deux buts euh, partout championnat bi Italie ñu ngi seen quinzième journée démb Inter Milan moom dafa daal di am ndam ñaari bal ci dara diggante ba ñi di waa Spezia Milan AC daal di fekk euh, Genoa ci dëkkam daal di ko daan ñetti bal ci dara kii di Zlatan Ibrahimovic moom jot naa football ba dugal sax Ballo Touré moom di doomu Sénégal nekk ci Milan AC mi ngi woon ci banc remplaçant yi Sassuolo ak Napoli dañoo daal di mujj match nul ndax waa ñu ngi daal di égaliser daanaka ci njeexitalu gi la jongante lu daal euh, moo di Kalidou Koulibaly moom dafa jot a génn quatre-vingtième minute de jeu ndax gaañu gaañu bi nga xam ne moom la amee woon waaye teewul ba tey ñoom waa Napoli ñu ngi wéy di nekk ci bopp raw gàddu bu classement bu euh, championnat bu Italie ñii di waa Bologne ñoom dañoo daal di bett AS Roma démb daal di leen daan benn bal ci dara ci Espagne foofu match retard la woon dañ doon dabe seen neuvième journée Real Madrid nag moom démb mujj naa am ndam benn bal ci dara digganteem ak Athletic Bilbao Karim Benzema moom moo jot a dugal bi lu but loolu nag li muy firndeel moo di ba tey yi ñoom waa euh, Real Madrid euh, ñu ngay wéy nekk ci euh, première place bi jamono gi nag rawee nañu lu tollook juróom-ñaari poñ ñi di waa Atlético Madrid moom mi nga xam ni itam dafa fas yéene dabe ñu daal di dem ca Turquie foofu nag ñu ngi doon amal seen seizième de finale euh, gi seen coupe nationale ka ca ràññi ko nag di doomu Sénégal gi di Mame Birame Diouf ànd ak clubam bi di Hatay Sport moom euh, di ab jour de champ neuf la maanaam attaquant la dugalkat la waaye démb fa mu mujjee moo di ci camp yi ndax dañoo daal di rouge seen euh, góol Euh, moom Mame Birame daal di dem dugal ba pare euh, ci tiro ba ci mujjantal itam daal di arrêté ñaari penalti léegi nag ba mu leen arrêté ci tiro yooyu dafa mujj permettre équipe bam boobule di Hatay Sport daal di euh, qualifié ci wàll huitième de finale bu coupe bu Turquie kon bokk àlak mi ngi noonu macha allah loolu moom sagu Sénégal la. waaw ma nga noonu. dégguma nga annoncé nag football bi am ci kër gi. Euh, rajo beeg observateur. ah diggante <laughs> marié célibataire. samedi marié célibataire man est que du ma dem si célibataire sa alaaj. en tout cas ndax ndax célibataire yi may seen nii. Ah. ñoo gën a lof marié yi. en tout cas xale yi léeg-léeg ñu mere mag ñi. gis ne ah. foofu lañ leen mën a jaar bu bis baa. <laughs> waaw ma ma nga noonu dóor la daal la dafa wax la lu ne. <laughs> mu ngoog Cheikh Tidiane. jaajëf jërëjëf. ak RFM. RFM kumpa nag yéen. ñu ñëw ci wàllug euh, aada gi chronique culture beeg Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi ñu yëngu ci wàllu euh, téere ca Ndar daal di nañu door li di rentrée littéraire bi ni ki fan yi ñu génn ca école euh, Ahmed ñu daal di ci waxtaanee ci lu jëm ci wàllu jigéen yi nga xam ne bokk nañ ci ñi gën a suqali koom-koomu réew mi waaye itam développement social ak culturel dañ ci déglu directrice centre culturel régional bi ca Saint-Louis Siraba ci micro Ousseynou Diop. ma di ñaax aussi suñu mbokk jàngalekat yi di ñaax ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñooy euh, kilifa yi nga xam ne tey ci Saint-Louis ñoom ñoo ëmb yore li nga xam ne mooy njàngale mi ñu gën a insister ci liggéey ak li nga xamante ne mooy livre yi nga xam ne suñu écrivain yi produire nañ ko mu indil leen raayo yu am solo fii ci ci réew mi ak ci bitim réew donc ma leen di ñaan ñu gën ci sukkandiku ngir gën a jàngale parce que livre boo bind yaa ngi wax li nga xamante ne sa société nan lay tëddee day mel ni seetu boo teg pour xool la ca baax la ca bon la ca bon nga seppi la ca baax nga jël ko boole ak la nga xamante ne moom moo baax feneen nga mën a mën a defaru ngir ëllëg nga mën a projeté wu pour mën a assurer un développement durable ñu des ba tey ci littérature bi Fama Diagne seen euh, di euh, directrice bibliothèque centrale bu université de Bombay moom moo daal di génnee ab téere jégleel ko Aïda Mbodj femme politique bi waaye itam soxna bi mu tënk loole yépp ci ab nataal bi mu dippee Aïda Mbodj la lionne du Bawol ñu doon amal cérémonie de dédicace téere boobu boobule ci teewaayu suñu correspondant Babacar Diouf. ñaari di Fama Diagne Sène dox na fi mbindab liifar ci Aïda Mbodj ñu tudde ko Aïda Mbodj gayndeek Bawol ci biir livre bi yépp Fama Diagne Sène di directrice bibliothèque universitaire bu Bambey jéem a wonewaat jaar-jaari Aïda Mbodj ci politique ak ci dundam ak askan bi ñoo mettre en place université bi donc euh, avant ma ñëw Bambey déjà dama cofoon Aïda Mbodj sama xol dama ko bëggoon ndaxte dafa nekk jigéen gu mën góor comme ni ko waykat bi di waxee donc comme ni ñu ko tuddee mooy laal yoon di Bawol gaynde Bawol la au donc ma bindoon téere bi rek pour bàyyi sama marque ci histoire ndax su ma dundoon du temps de Njëmbat Mbooj boobu damay bind ci Njëmbat Mbooj donc Aïda Mbooj laa fekkee te moom moo ma doy te moom prise de position moom moo ma neex ni muy défendre ay ay idées ak ni muy jël prise de position yu courageux ci jom ci muñ ci kersa ci jub ci bëgg vérité ak bañ hypocrisie donc loolu moo tax mu bind ci téere bi mu di jaar-jaar yoo xam ne nii Aïda Mbodj rafetlu na ko nee na li mu ci bind yépp mënu cee faase lenn. mu nekk mbànd moo xam ne ku bëgg politique war nga cee mën a sëmb nekk loo xam ne kuy jàng politique war nga cee xalaat liir ko. te loolu mooy intérêt livre bi. cérémonie dédicace bi ñu ngi ko doon amal ci Bambey ci dimanche ji fekkee ko nag ñi nga xam ne ñooy kilifay coalition politique bi di yeewi askan wi. ñu koy jaajëfal di leen jaajëfal bu baax a baax nit mbokk yi ci déglu bi di daje ëllëg incha allah. jërëjëf ana Kocha laata yéene kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye wàllu wér yaram ak Espagne mi taxaw ngir am position bu am solo ci wàllu tourisme médical maanaam euh, di fa fajoo waaye ci anam yu bakkane euh, fu ci mel ni ca Las Palmas euh, fànn woowee yebal nañ fa soxna Awa Mbay daal na fa it nemmeeku ñaar ci l'hôpital ñoom Espagne taxaw nañ ca Las Palmas ngir ni ñu ko waxee ci wàllu tourisme médical am ca taxawaay bu rafet signé nañ ci sax ab déggoo di convention Euh, seen digg ak gouvernement bu Sénégal ngir yenn évacuation di rawale yi Awa Mbaye hôpital Sandroxé nekk ci digg quartier Begueta bokk ci bërëb yi nga xamante ne ñoo gën a taaru ca Las boo duggee fii daanaka banqaasu kër docteur yépp am na fi waaye l'hôpital Sandroxé bi mu gën a dogal koppar mooy wàllum pajum cancer jumtuwaay yu xarañ méngoog jamono mujje génn lañu samp eh, ca bërëb ba lépp rekk ngir eh, paj mi gën a ñoŋ ci saytu bi chimiothérapie radiothérapie opéré bi ba ci malaat cancer yi li ñuy lekk lépp ci benn bërëb eh, lañu koy fekk mooy sous bi boo bësee ascenseur bi moins ci taax mi nga xamante ne ñetti étage la lii lépp rekk ngir malaat bi bu duggee ci biir hôpital bi bañ a wër a ka laajte lépp mu fekk ko ci benn place professeur Lama moo ko jiite di wane lépp dam sax ba génneel ñu robot bi nga xamante ne dafay dugg bloc ci waxtu woo xamante ne jigéen bu am cancer bi jàpp wenn ñu ngi koy opeere bu ñu dindee feebar bi balaa ñu koy ñaw robot bi mooy profito defal ko benn séance radiothérapie li waral pexe bi nag mooy kiy faju diir bi gën a gàtt mu bañ fa yàgg li mu doon wut mu am ko. nii am nañ fi ay robot ak jumtuwaay yi nga xam ne ne ñooy tax muy dox maanaam ay applicateur beneen hôpital ca Las Palmas mooy San José jàkkaarloo géej gi fii nag li ñuy wax médecine environnementale moo fi gën a fës ki ko jiite di docteur Antonello Paciuto moom sax nee na jot naa liggéey waa centre antipoison fii ci ndakaaru daaw ba feebaru nappkat ya jóge ñu doon seet lan moo ko indi yéen a gis ñi nga xam ne ne ñooy patient yi ñu nekk ci radiothérapie bi nga xam ne ne ci biir tamit ànd nag euh, lii di ci chirurgie. ay l'hôpital yu am jumtukaay yu méngoog jamono saal ya ñuy enterré malade bu ñu tëddee seen kaw lal di seen géej wala ñu seen xàll wu yaa bu ñu classé patrimoine historique di fësal taarix lii mooy li île Grande Canaria di fësal di paj mu ànd ak noppalu di tourisme médical ñu bëgg réew yépp jot ci Awa Mbaye Las Palmas ci île Grande Canaria ca Espagne pour RFM.